li gën a fës euh, ci biir euh, internet bi ginnaaw rek euh, ba leaderu Pastef bi leen di Ousmane Sonko daal di defee nag ab malaise foofee ca diwaanu Ziguinchor gis nañ ne nag kilifa bu Y'en a moom itam dafa daal di def rek ab malaise ca kanamu rek préfecture bu Ziguinchor moom nag dafa daal di doon dox doxum ñaxtu jëm rek ci l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de Ziguinchor ginaaw rek ba muy amal discours ba ca la daal di rek daal di defee ab malaise waaye nag heureusement ba ñi xamante ne bi rek ñoo ko wóoroon daal di nañuy rek gaaw euh, dimbali ko ba mu mën a rek daal di euh, jugaat euh, ci mbirum Ousmane Sonko ci la ñuy daal di wéyandi gis nañ ne rek ne dañ ko placé sous contrôle judiciaire waaye nag kii di Samba Sall mi nga xamante ni rek dafa génn àdduna ni ay fan rek yi ñu génn daal di nañ xamle ne mbir moomu lee moom mosu koo def mosu koo placé sous contrôle judiciaire buñ sukkandikoo rek ci cousin bile moo ko daal di dénk suñuy naataango yi nekkee ca diwaanu Zik FM ngir xam xamle ne kii di Samba Sall mësul placé sous contrôle judiciaire kii di Ousmane Sonko ay kilifaam rek yi nekk ci kaw ñoo ko ko daal di placé mais moom defu ko benn yoon cousin bi rek moo ko daal di xamal waa Zik FM. ñu àddu ci leneen mbirum allumette yi gis nañ ne nag jamono ji mi ngi wër rek di lëmbee réseaux sociaux yi rawatina fii ci euh, Sénégal gis nañ ne nag dafa mel ne mbir yi dafa commencé euh, jàpp ndax benn daam bu yoo ci turu Aïda Mbaye rek moo daal di nopp lool euh, jëkkëram daal di détourné lu tollook 41 millions ci ci alalu euh, papam daal di koy jox rek jëkkëram joojule lam ca namu rek moo di mu jël ko daal di dem ca diwaanu euh, Canada waaye mbir moom moomu lee mujjul euh, sotti buñ sukkandikoo ci ëttu yëglekaay bii di le quotidien ndaxte waajuram bi dafa daal di rek xam ne doomam ji jël na lu tollook 40 million ci xaalisam ci noonee rek la daal di demee ca division des investigations criminelles ngir rek ñu daal di koy jàppal doomam bu jigéen bi ak jëkkëram joojee buñ ci euh, Seneweb xamal nañu ne euh, DIC euh, def na li ni mel enquête ba dina woyandi lépp lu ci fasaad dina leen ko indil ci suñu a jotaayu xibaar. ci mbir mu ni mel la ñuy daal di desandi benn góor rek boo xamante ni nationalité ma nigérian la moom nag lañu ñu daal di ah, jàpp ginaaw rek ba mu sàccee ay banaan yu bëree bëri lu tolloog ah, ci 10 000 naira yamoo nag ak 14 000 francs CFA ci suñu xaalis lam ca wunnu rek nekkul lenn lu dul rek daf ko daal di sàcc ngir jëndal lekk copine bi ay maquillage yoo xamante ni bii rek doon na ko ko demandé ginnaaw ba mu janoo rek ak enquêteurs yi loolu la leen xamal ndaxte nee na ah, ndawam si lee daf koo daal rek. wax ne bés bu ko indilul rek dina ko bàyyi rek moo tax rek mu daal di sàcc yooyu le banaanay jàmbur daal di koy indil corom boobu le ngir mu mën cee jënd nag ay maquillage mu mel ne rek li ni mel mbëggeel moo tax rek mu daal di koy def ak bañ a ñàkk lii di corom ma nga xewee nag ca diwaanu Nigéria. ba tey ci mbirum cambriolage ci la ñuy daal di desandi gis nañ ne nag kii di Zeyna Bamba nekk présentatrice foofee ca Seneweb moom nag dañu ko daal di rek. rek cambriolé durant nag bi mu demee kër ay waajuram féetee fa lii di euh, korite gi mu yemoog rek ak ñaari semaine bi mu dellusee nag ca diwaanu westu Foire boobee mu dëkk gis na ne nag ne appartement euh, dañu koo daal di rek euh, tocc mu gis ne nag ay matériel am yu bëri dañ koo daal di yóbbu lu ci mel ne nag ay bison en or am bàyyiwuñ ay bàgg wuñ fa dara loo xamante ni bii rek moom rek moomoon na ko ak benn somb toll la ko trois cent quatre-vingt mille ak ay périgu ko daal di jël ba tey jii rek xamul ki def li ni mel ba tax ab plainte daal di na koy déposé enquête ba nag ma nga yi wéyandi lépp lu ci fasaat dañ leen ko indil ci suñu yeneen ni jotaayu xibaar Euh, ki nga xamante ni bii rek ba tey dund na lu ni mel nekkul kenn euh, ku dul Akon euh, ni ki démb rek ci talaata ji yamoon ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai moom nag Akon dafa daal di rek gaare woon otoom ci benn station ngir di fa jël essence ci noonee la bàyyee otoom daal di nag bàyyiwaale clé yi ci biir am ku ñëw rek daal di koy jël mu nekk nag benn oto boo xamante ni marque ba BMW la loolu la ko journal bi bindee buñ sukkandikoo rek ba tey ci. ci journal bi ginnaaw ba mu jëlee oto ba ci biir oto ba tamit am na tamit benn collier boo xamante ne ni jamaa la njëg la mi ngi tolloog vingt cinq mille dollars yamoo ko treize millions trois cent quatre vingt onze mille euh, deux cent quatre vingt ci suñu euh, xaalis ak benn téléphone iPhone ak benn sac Louis Vuitton moom nag dafa daal di woo police ci saa si ñu daal di ñëw euh, def descente ci foof mbir ma xewee waaye nag police daal di nay mujjee rek jot ci oto bi ginnaaw ci ay traces ak caméra euh, de surveillance yi jot nañ nag ci oto ba ba indilaat ko Akon waaye nag ba tey ki sàcc mbir mi ñoom mënaguñ ko identifier jamono ji enquête ba ngay wéyandi lépp lu ci ruusani waa danañ leen ko digtal euh, ci si suñu a jotaayu xibaar ñu àddu ci leneen gis nañ ne animateur groupe euh, Futur Média bi la di Aba No Stress gis nañ ne nag démb dafa partagé ci page euh, Facebook am euh, benn photo Youssou Ndour boo xamante ne bii rek daf ko partagé ci page Facebook am mu mel ne nag image boobule ma ngi ko ci wax rek naan ko patron te nga changé sa téléphone bi ndaxte photo bi nga xamante ne ni rek partagé nga ko téléphone bi ko photo nekk na téléphone bu yàgg publication boobu nag manqué wul benn yoon. ay réaction ndax gis nañ ne nag internet yi ñu ngi cay commenté bu baax a baax ak gis nañ ne nag internet yi ñu nga cee réagir bu baax a baax ci publication boobu lee nga xam ne euh, kii di Aba def na ko ngir rekk di moquer euh, kii di euh, patron di yuusu omaa jigéen Ndour ñu addu ci euh, leneen gis nañ ne kii di Adamo euh, jamono ji rek songu na euh, famille wu série Adja ginnaaw ba mu partagé vidéo Doudou ak ngoor ginnaaw ci seen vidéo lomotif boobee nga xamante ni bii rek jéggi na dayoo lool ci gisin gis nañ ne nag woon na ami bu série Adja ngir di ko xamal ne ko dafa yore rek benn vidéo boo xamante ni bii rek am nataalam moo ca nekk muy def rek benn vidéo bu jéggi dayoo boo xamante ni lomotif la mu laal rek ay partie Euh, intime am ginnaaw rek ba mu waxee euh, li ni gis nañ ne rek ñu bëri commencé nañ ko partagé ci euh, réseaux sociaux yi di xam ne rek ne am yi dafa daal di def vidéo lomotif waaye mbir moom lee amul benn yoon kii di Adamo daf ko doon piégé rek mu mel ne rek fake news la dara amu ca kii di am Ami amul benn yoon vidéo lomotif boo xam ne def na ca rek ay ñaawteef ba di ca laal ay partie intime am boobu lee xibaar wérul ab fake news rek la dañu koy ñuy jeexaleeg Abdou Karim Gueye alliance Karim Xurum Xaax moom mi nga xamante ne bii rek nëbbul euh, benn yoon am meram jëmee ci euh, émission genre boobe nga xamante ne bii doon na am euh, ca TFM ci durant koor gi ki ko doon def rek di yaa Awa Dieye ak oustaz Modou Fall nee na ñoom nekkuñu ay exemplaire pour la jeunesse sénégalaise ndaxte nee na kii di yaa Awa nan la mën a rek defee émission bu toll noonu ñu cay tari alxuraanul karim ba pare muy jël greffage am ko teg noonu sans mu teg ci kol nee na loolu rafetlu ko ah, benn yoon te oustaz bii di ah, Modou Fall waxu ko benn yoon mu teg kolam nee na ñoo ñu nekkuñu ñenn ñu dul di gën a yàq xale yi ndaxte ñoom ñoom la ñuy roy ndax ñoom ñooy star yi kon lépp loo xamante ni bii rek def nañ ko dañuy yaakaar ne ah, lu baax la te nee na alxuraan lu tedd la dañ ko war respecte waruñu te def émission boobule te du jël kol di ko teg ci boppam lii rek moo fi gënoon fës ami internet yi lay doon ba ëllëg ak jàmm